bismillahi irrahmaani irrahim ginnaaw bu ñu delloon nuyoo mbokk yépp te ziyaara mbokk yépp di ci jiital sëriñ basiiru ca nañ ko waxe woon ci jataay ba weesu woon rek jombut ñoo ko fekke woon xam nañu lañu tënkoon ci moom di jottali nuyoo bi ba ci sëriñ Mouhamadou Mbakke mi ibnu sëriñ Cheikh Sidil Maxtaar mi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp yoon wi mu nekkit suñu magu daara bu wéra wér ñu di ko jox wàccuwaayam ci daara ji ak ci tariixa bi yépp nag waxtaan wi dañu koy sos rek ci li sëriñ Basiiru doon wax kàddu yu tënku lay doon daanaka rek ndax dafa mel ni ci mbokkoo la doon waxtaan te yonente bi sallallahu alayhi wa wax ci benn xadis ne istaksiru min al ixwaani fa inna li kulli muminin shafaatu yowma alqiyaama dangeen di bari lu ngeen di mbokkoo ndax mën na am jullit bu ci nekk rek ëllëg mën na nekk ab rammukat te kenn xamul kan moo ciy tombee kan moo lay ramm ba mu ko waxee nag dafa firi lan mooy mbokkoo moom yonente bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne mbokkoo ci ñaar kese la tënku muy dangay tàmbali ak kóllëre sa diggante ak nit te rafetal kóllëre ga daan ne kóllëre nag garabu cofeel la gu ñuy jëmbët gu doomu aadama ji di jëmbat ci diggante ba nitam te saxal garab googu ci di ko roose ba ba muy ñàkk nit kooku mu continuer ko ci njabootam maanaam kóllëre la cofeel kóllëre la ak rafetal ko mu ne kóllëre nag cofeel la gooy saxal gooy tàmbali saxal ko sa digganteek nit te di ko toppatoo ak di ko saxal ba ba ngay ñàkk kooka bu fekkee moo la fi njëkk bàyyi ko nga wéyal ko ci njaboot gi mu fi bàyyi te mbokkoo gi mu doon waxtaane it ñaari rafetal ko tax ñu sori ak noono ñagasal ko it dina jurug noono te noono mën naa juru iñaanante te tudd na sax baatu iñaan ci biir wax ji moom Sëriñ Basiiru ba tudd fi aaya ji may bëgg a ci suuratu nisaa yi wala tatamannaw ma faddala allahu bihi baadakum ala baad ndax nag lir rijaali nasibu mimma iktasabu dafa eggut ca ma di ko jottalil walin nisaa i nasibu mimma na kon nag wasalullaha min fadlihi ndax lo foofa la secret bi nekk su fekkente ne bàyyi xel li sa moroom am taxul mu am njariñ lool moo xam bàyyi ko xel ci ñee ko ci wala bàyyi ko xel ci iñaane ko ko bu ci nekk rek daanaka ñàkk xam fi nga war a teg sa tànk lay mën a doon ci buñ delloo ci aaya ji lan moo am solo yàlla dafa wax ci alxuraan góor gi munta sàkku lu dul munta am ci man lu dul lim sàkku ku jigéen ki it munta am ci man lu dul lim sàkku kon nag fexe sàkku te ñaan yàlla ci ngëneelam mu defal ñu la ñuy sàkku foofu la rawante bi gënoon a nekk walis kenn ku nekk di bàyyi xel la moroom ji di am ba mu koy jural ak coxor am na benn boroom xam-xam bu wax ne na Ali yu dafa dajale woon ñeenti waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëje ko ay waxam moom na Ali yu waxoon ne buñ ko jëfandikoo danañu mën a dimbali ci ñu rafetal sunuk mbokkoo te mbokkoo li ko mën a rafetal mi ngi tàmbalee ci sori ak iñaanante ci suñu diggante tey sàmm ba iñaanante googu it bañ cee dugg Seydina Ali wax ne yonente bi dafa ne innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma jëf yëpp yàlla ci yéene ji rek la ko denc kon doomu aadama ji day yéene ba jeexal takk ba noppi nag jëf la man Sëriñ Saliou Mbacké radiyallahu anhu ñim yar miin nanu ko ci kàddu gi may bëgg a wax daan na wax ne da ngeen di fexe ba seen yéene ak la ngeen man ngeen mel ni tànk ak xel daan ne am xel moom mën naa toog ci biir néeg bi wër àdduna ba mu daj waaye tànk am na fulla saa su ne su xel wëree ba dajal bu ko yëkkatee tànk moom nee na ciw yoon rek lay jaar waaye xel mun a fexe ba jaarloo tànk ci bëttiloo ko miir bi ngir dem moom ma ko man na ko def waaye tànk moom mi ngi koy xaar rek ci bu bëggee jëf moom tànk mun ne ko man ciw yoon lay jaar kon loolu moo war a yéene rek ba mu jeex te jëf nag lam man leneen tamit yonente bi wax ko Seydina Ali yu teg ko ca te dana rafetal ñu mën a sori ak noonoo ci suñu diggante ak iñaanante mu mën a rafetal nag ak mbokkoo yonente bee waxoon ne ala inna fil jasadi mudduxa isa saluhat saluhal jasadu kullu wa ida fasudat fasudal jasadu kullu ala wahiya alqalb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne doomu aadama dafa am secret bu nekk ci moom su secret bi muccee lépp mucc su secret bi yàqoo lépp yàqu ñu ne ko lu mu mun a xol ba kon nag yaakaar naa bu ñu defee effort ñun ñëpp ngir jéem a laabal suñu xol yi dana mën a tax ak mbokkoo dëgër ci suñu diggante te dana mën a tax iñaanante soxorante mën a àndu ci suñu diggante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne it daanaka iñaanante wala soxorante ñàkk xam li xew rek la li ma xuliqa doomu aadama ji saa su ne bërët te tege ci yoon te te te te tege ci destin laa ko mën a wax saa su ne bërët daal te tege ci li tax yàlla bind ko bu fa lambee dana nooy nepp te bu boobaa dana mën a wëy ba du tal di lijjanti leneen waaye képp ku lamb fi nga lamb ñagas ba talatoo continuer ngir di lijjanti leneen war ngaa bàyyi xel sa bopp ne dajuloo yoon wa sëriñ bi wax na ba tudd fi baatu yàkkamti ci biir waxtaan wi yàkkamti googu it ak ñàkk a rafetalu ak kenn ku ne a topp rawante bi loolu bokk na ci li koy indi Seydina Ali ba mu firi aaya ja muy laxad xalaqnal insana fii kabad daf ne woon eh, xuliqal insaanu min ajal la doon firi mune ne la taajalanna fa laysa rizqu fi l ajali ma al ajali fa law sabarna lakaana rizqu yatlubuna lakinnahu xuliqal insaanu min ajali Seydina Ali yoo waxoon nit ñi dañoo yàkkamte te wërsëg nag nekkul ci yàkkamti ndax wërsëg lu yàlla désigné ca lawxul mahfuus la te jàmm bi du ci teg loxo mukk ndare bu daf koo soob moom yàlla su nit ñi comprendre woon loolu te yéenante lu baax te dox ci dal wërsëg mooy mujj nekk ki leen soxla te di leen sàkku si ñoom waaye nee na malheureusement nit ñi la yàlla bind ci ak yàkkamti yonente bi salaa alayhi wa waxoon ca xadiis ba ne bokk na ci la li rafetal biir nit ñi mooy doomu aadama ju ci nekk li muy dox na ko dox ci secret ndax dox te bañ koo jottali sa moroom dina tax sax seytaane bokk xanaa du amati fu mu jaar ngir mën a influencer sa moroom ba loolu bañ koo neex ndax loolu lépp ay buntu la yum daan jaar taxoon mu ne istainu ala xadaai hawaijikum bil kitman man dangeen di dimbali koo faj seen soxla yi discrètement te bañ a wër di ko partager ci mbedd yi sëriñ Basiiru tudd na fi ñeenti nit ñoo xam ne ci rafetalu mbokkoo dañoo toog ci jataay ñoom ñëpp ñu aajawoo am ndox am ku leen ko yéene di leen ko jox ku ci nekk ne ko jottalil diw moom ma ko gën a aajawoo balaata moo dajal ñeent ña bay dëppaat ci ku njëkk ka fekk na ñëpp mujj ñàkk seen bakkan ba kenn jëfandikoowu ko gis ngeen mbokkoo gu rafet loolu muy jur sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nettali ci téeréem bi ñuy wax silkul jawahir safaanub ñàkk a mbokkoo ak bañ a yéenante lan lay jur mu ne Seydina Ali say yonent yàlla Isa mës naa ànd ak xawaari yuun yi muy taalibe yi daan ànd ak moom di dox ba egg ci benn pàkk nee na yonent yàlla Isa taxaw ne leen pàkk bi dafa am lu fi xewoon te ma bëgg koo jottalante ak yéen dafa am ñetti nit ñu sonnoon lool tumuraanke xiif mar di dox ba tollu fii yàlla def ñu fekk fi ndàmb lu xaalis bu bëree bëree bëri ñu dajeeg moom ci mbedd mi for ko maanaam for nañ daal un million d'euros te ñoom ñett ñëpp amuñu woon lu ñu lekk bañ ko foree daal di amuk dal am sago daal ah ñun kat comme danoo xiif li ñuy njëkk a def na kenn ci ñun dem uti lu nu lekk yóbbaale xaalis bi fàggu ci lu ñu lekk te ñëw buñ jëfandikoo ba noppi nag ba suñu xiifaay bi dañ ñu doog a amuk dal nag doog a xool ba xam naka la ñuy séddoo xaalis ba ba kooka demee nee na daal di xalaat xaalis bii daal damay jënd lekk gi ba pare posone lekk gi su ma ñëwee jox leen ko ne leen suur ñoom ñu lekk ko te dee ma jariñoo ko man kese ndax xajuñu ci fekk na ñaar ña mujj nañ xalaat ne mbokk mi daal su ñëwee xamu nun war a defa ray ko man ak yow te séddoo xaalis bi ndax mu nekk ñaari paar te bañ a nekk ñett almuhim waaja def na la mu bëgg a def ba mu dellusee ak lekk ga nag ñëw na posone ko jox leen ko ñoom ñaar ñu song ko rey ko suul ko jël lekk ga fas yéene lekk te séddoo alal ja lekk-lekk ga dee ñoom ñaar ñoom ñett ñëpp ñu bokk tëdd foofu alal ja toog fa di leen xaar loolu lépp nag loolu moo koy faral di indi sëriñ Basiiru nettali na fi ba tey santiment yi nga xam ne doomu aadama ji su ko ëmbalee moroomu nitam ñaarit mu misaal ko ci dafay mel ni compte bancaire nit ki saa boo jëfee lu rafet jëmee ci moom dafay mel ni danga ngaa ci compte bi dara saa boo jëfee lu ñaaw jëmee ci moom dafay mel ni danga ngaa ci compte bi dara ah kay noonu la demee. saxaaba bi ñuy wax Abu Darda yaakaar naa ñu bari xamu nañu ko ci ñu nekkoon ak yonente bi sallallahu alayhi la bokk yàlla daf ko natt woon mu tumuranke ba mu jéggi dayoo am nag soxna su mu nekkaloon ca kër ga soxna si mënatuta muñ tumuranke gi. guddi ak bëcc mi ngi koy xas guddi ak bëccëg mi ngi koy attaqué ci amuloo jom. uti woo dara da ngaa ñàkk fayda da ngaa ñàkk jom sa moroom yi am nañ lii ñee am nañ ko da ma bëgg a toroxal wax a wax a wax ba sonn demal ci diw boo demee ci diw moom yàlla teral na ko dana te dana la ci mën a jox mu ne ko dew ma soxna si mujj dem ca diw seeti ñam jàpp ne mën nañ ne leen sama borom kër kat yéen a bokk yonente bi bokk diine ji te yàlla natt ko daanaka kër ga amuñu lu ñu jëfandikoo waxuma laak nag lu jëm ci sama yaram man ma bëggoon nag sàkkul ko ndimbal ndax dafa bari kersa ñu ne ko dañoo wóorut ba xam moo la yónni wala déet demal nga wax ko ko saa bu ci amee aajo bu ñëwee waxal ko boppam nun danañu ko def waaye dañoo wóorut ndax ci ndigalam nga koy doxam déet mu ñëw wax ko ko mu ne ko am naa kersa gi mu ne ko kon mën nga bëgg a toroxal nekkati ca wax ja nekkati ca wax ja ba Abu Darda ine ko jaru ko kon saa boo yitte wootee dara ndax man mën naa ko muñ waaye saa boo jàppee ne waroo mënoo koo muñ xoolal koo jàpp ne am na nga yabal ma fa ma dem sàkku ji luñ dunde saa bu xëyee na ko demal ci diw ndax tey dara nekku fi mu dem ci diw na ko maak sama soxna kat dañoo tumuranke may sàkku si ndimbal diw jox ko ba mu ko defee ab diir soxna si ñëw na ko nii nag boo ko defee léegi ñu juboo ndax maa ngi doog ko xam ne ku ma sopp nga maa ngi doog a xam ne ku am yéene ci man nga te maa ngi doog a xam ne ku may toppatoo nga mu ne ko cofeel gi ma la soppoon bu fekkoon téeméer la jëf ji ma jëfloo saa su ma utijee lu ñu lekk ci anam boobu te yaa ma ci dugal saa bu lekk gi ñëwee benn point manqué na fii may waxe ak yow nag point na point yee jeex na tàkk dama bëgg nga dellu sa kër jur xool koo xam ne yàlla mane na ko gan nga continuer ak moom liggéey bi nga xam ne waroon naa dox sa diggante ak nit lan laa bëgg a wax mooy def loo nit ki jëm def jëme ci moom ci loo xam ne ab safaan la ala kulli xaal yaa ngi retiré ca compte banqueram loo fay retiré ak cofeel comme ni ko sëriñ bi waxe sànq yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne ñetti gana ngi nii du ñu tàggoo suñuy ñëw duñu joxe rendez-vous te duñu yëglu ñetti gan ñooñu nag mu ne woon dee la wërsëg la ak cër ak dee mu ne wërsëg gan la goo xam ne saa suy ñëw du tàggoo du laaj rendez day jékki-jékki rek ne jalañ li ëpp solo ci doomu aadama ji balaa muy lijjanti bosu diw ñëw naam ñëwut nee na dafa war a concentré wu tal bosam moom ba xam ñëw naam ñëw ñëwut te nee na sa wërsëg woowu bu ñëwee balaa ngay ges di lijjante ba xam bosu diw moom it egsi na am egsi wut wala diw man sama bos ñëw na te sa bos ñëwul nee na dangaa war a xënte woo wërsëg woowu lewet doom mu ci say loxo ndax wërsëg mënees na koo yor ba noppi mu tàng jër ci loxo nit ñi te loolu min nañ ko daan na waxit ne ab cër bokk na ci li tax doomu aadama yi noonoo te buy ñëw du moom cër boobu yi daan na wax ne bu ñëwagut li nga war a xënte woo mooy lu ko fi indi waaye waroo xante woo ba xam bosu diw ñëw na am ñëwut ba far fàtte sa bos waxtu wu ne dangaa war di ñaan yàlla cër ba ñëw te cër ba it bu ñëwee ba noppi bul ko puukarewoo ci ki ko amut ak di lijjanti ka ko ñàkk ak ka ko am nee na dangaa a kay tal sa boroom ci fexe ba cër boobu mujj ëmb sa sutura ndax doomu aadama am na cër ba noppi ca su ca cër ca suturaam ca biir cër booba lay xawee ko la ca toppit mooy dee mu ne dee nag yéene ko nit fala ak ndof yam waaye daanaka sax naqar lu ko ci nit tamit ñàkk xam fi nga jëm la ndax la am solo rek mooy comme jël na wàllam te sa wàlla ngi ñëw te du la tàggu nga fexe concentré wu ci buy egsi man laa fekk ci ngërëmu yàlla ta man la caa bàyyi. xam naa wax ji duñ ko guddal daanaka ab kii la woon rek bu ndaw boo xam ne dañ ko ci doon taalix xam naa dañ koy jeexale ci soxna Fatimatu Ja soxna Fat Ja sëriñ bi daf koo masa woolu ci mujj dundam. ak guddi mu ñëw ñuy waxtaan mu na ko soxna Faatu lixlaas day dafa gàtt ci ab xool waaye ay mbiram gàttu lixlaas nag mooy sooratul ixlaas daan ne ko dama bëgg saa bu guddik aljuma jotatee maanaa alxamis bu ñu koy yendoo ba julli liggéey guddi gi aljuma tàmbali na dangay dem nga julli ñaari rakka nga jàng benn fatiha teg ci benn salaatu ala nabi teg ci ñeen fukki lixlaas tegaat ci benn salaatu ala nabi nga yéene ko mbooleem ñi faatu ak mboolem ñi bëgg a faatu ji ëllëg daan ko gis nga lii soo ko sàlloo li des ci sag dundu saa boo fi bàyyi ko boo demee barzaq nit amul àq jum lay topp ndax ku la bëgg a topp àq yàlla dana ne kii mbaa yàlla na boppam ci àdduna ndax doon na yóbbante ñi ko fi jiitu woon ci barzaq doon na sax sédd ñim tollooloon jamono te it doot na yóbbante sax ñi nga xam ne danañ ñëwi barzaq te ñëwaguñ fi kon kii wàccoo na ñëpp bu amee àq kay moom mooy toppaate àq waaye kenn du ko topp àq daan ne ko soxna Faatu am na jeneen àq ju dese muy ñaari way jur yi la séq ñaari way jur yi la séqit matal seen àq daanaka kenn munu ko waaye nag mën naa la dénk loo xam ne yow moom bu ëllëgee boo ko saxalee ak képp ku la ci roy da nga bokk ca matal seen àq loolaay lan mun ne ko sax boo julleetee julli juróom da ngay jàng fatiha benn yoon jàng ñetti soratul ixlaas jàng benn falaxi jàng benn naasi jàng benn ayatul kursi yu daan ne lii de yéene naa ko sama ndey daan ne ko xam nga lu tax ma jiital sa ndey parce que ndey mu ëpp àq nag ci doom ci wayjur wa su ko defee nga bamtuwaat ko daat ne yéene nga ma ko man mii di sa wayjur képp ku la cay roy mu def ko yéene ko moom it kay wayjuram daan ne ko li wérta wóor mooy lii soo ko defee bu ëllëgee da nga wàccoog ñaar ñi la seqoon ci àdduna àq ju leer naññ ak ñoom kon bu fekkee moom lañ duppee bis bi teñ bëgg koo roy mën nañoo bàyyi xel loolu ñun tamit te di ko saxal te ko ci roy bu baax xam naa beneen yoon bu ñu amee occasion dana gën a yaatu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.